jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaine bile xibaar yi dañuy àddu euh, ci conseil constitutionnel ginnaaw bi mu rekk dàqee lu jëm ci wàllu radiation contumace bu Ousmane Sonko mu ni loole nag moom Amadou Ba sax joxe na xalaatam moom mandataire bu Bassirou Diomaye Faye la ginnaaw li nga xam ne fësal nañ ko ci ñaar fukk ak benn candidat yi nag nekk ci élection présidentielle bile ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey mu ni di gën a am solo kay te conseil constitutionnel génnewu ko sax kon mooy jëm rekk ci intégré bi nga xam ni dugal nañ ko Ousmane Sonko mi di ci fiche électorale yi te kon ñu ni loole ñoom nanguwuñ ko ànduñu ci ndax loole rek lay daal di ndurool moom nag mu jàpp ni kon lu ñu war a xoolaat la te loole kon moo gënoon a am solo te tey moom lañu bàyyi ginnaaw ak ci lu mu mënti doon ñu toppee ko moom kile di candidature bi léegi Ousmane Sonko ginnaaw lu ni ñu ni kon dañ ko rekk daal di bloqué ndax matul mu ni kon ak lu mu mën ci demee ba tey conseil constitutionnel ak liggéeyam ak na mu taxawee war na koy jàppee ne Ousmane Sonko candidat la ginnaaw loolee nga xam ni mettiwul dañ koy lijjanti rek daal di koy defar mottali ko waaye mu mel ni kon loolee lu gënoon ci ñoom la wala lu ñu bëggoon la ginnaaw recours bi nga xam ni tey teg nañu ko DGE ak itamit rek commission bi saytu wàllu élection yi lii maître Ngagne Demba Touré daal di fësal lu ñeel nag ay résultats yi nga xam ni jot nañ ko ci wàllu euh, collecte ak fonds bu campagne présidentielle ci atum 2024 bi lee ginnaaw loolee daal di nay fësal kon yile rek résultat ci chiffres yi kon mu njëkkee ko foofee ca mu ni ñaar fukki millions la ñu daal di am ñaar fukki million ak ñaar ca Suisse juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti millions ca États-Unis ñaar téeméeri millions ca Italie ñaar téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom ca France mu ni loolee kon dana wéy tey jilee eh, ca Espagne ak ca Royaume-Uni te tamit jàpp na ni suba kon beneen bis la te danañ ko gën a rek yokk ginnaaw saytu bi nga xam ne def nañu ko.